agat yaak sañ-sañ bi ak mbugal yi kàttan daal ak coobareem ca lay jëf laa gis mu xew mi ndee manul sañul lëf dogal baam day lëkkaloo ki xew-xew Cheikhouna Sylla ak Serigne Modou Diakhaté ñaari ndaw yoo xam ne nii seen ak dund lépp dañ koo jeexaloon ci liggéeyal sëriñ Touba Cheikhul Khadim loolu firnde na seen demin wi ñu dem talaata ci ngoon gannaaw bi xibaar bi jollee ci liggéey bi ñu doon defal Serigne Touba Cheikhul Khadim ci saytoog waa Touba ci kanam gannaaw bon jotee xibaar ba àgge ko ki fi xalifaab Serigne Touba Cheikhul Khadim di Cheikh Mountakha Mbacké mu yëkkati ci ay kàddooy seede ne ne kët am nañu taxawaayu ku dee ci xare mu nekk demeen woo xam ne ni metti na waaye dal na xel ku nekk ci ñun bu sañoon am ko. ci àllarba ji ci yoor yor gannaaw bi ñu leen doon waajal fii ci armeel yu njëkk yi mbooloo mi bari na lool bàyyee ko fu nekk jànqatu xasida yi di yëkkati baay faal yi di sikkar xarit yi ak wëllëre yi mbokk yi ak ñi nga xam ne ni sax ci ndigalal sëriñ bi rek ci leen ñëwee ñëw na nag ngir taxawu gunge ñaari doomu aadama yi di sëriñ Cheikhouna Sylla ak sëriñ du Diakhaté di ñaar ñoo xam ne nii seen laxasaay ñoo ngi ko tekkee ci liggéeyal sëriñ tubaa Cheikhul Khadim. kilifa yu bari bàyyeekoo nañ ci njabootuk sëriñ tubaa ak maam Cheikh Ibrahima ñoo ñëpp ñoo nan taxaw leen gunge leen ci njàngum xasaayit ak zikkër ba ci seen kër gu mujj fële ca bàq ya ñenn ci ñi nga xam ne ni sax ñëwoon nañ ci denc bi yëkkati nañu ay kàdday seede kàdday soññe waaye ñee ñaari jëmm yi waaye nag fàttewu ñu benn yoon soññ ak ñaaxaat ñii di jullit yi rawatina murit yi ñu gën a jaayante gëna a soobu ci liggéey bi nga xam ne nii saa su nekk ñoo ngi koy liggéeyal Serigne tubaa Cheikhul Khadim. kon xale yi mën nañu jàpp dañoo jihaat dañoo jihaat dañoo doon jihaat ba teel ba teel leen alhamdulilah rabbil alamin nag bi nga xamee dogalam yàlla bi mu wàccee ci ñoom Touba ci kanam yëpp yëgandoo nañu yàlla wàcc na dogalam ci ñoom ñu àndandoo dem ci Sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha yëgal ko loolu moom mi nga xam ne mooy borom liggéey bi kàddu gëm yëkkati rek doy na mooy ñii dañoo sahit dañoo gay ci xarab toolu yàlla ba noppi ñaanal leen ñaanu xalifa de murid bari na ñoo xam ne buñ faatu moom bëgg nañ sëriñ Tuubaa ñaanal leen te xale yooyu am na ñaanu xalifa bi bi ñu ko amee ba nag ñu àndandoo ak sëriñ Abib bi kon boo dem ñu sëkk sëriñ Tuubaa yëpp dem ci kër sëriñ way ji ñu fekk ñoom ñu ñuy nangu dogalub yàlla xam na yàllaa leen ko joxoon moo ko jël te lim ko jëlee moo leen gënal mu koy jëlee ci leneen bari na xale yoo xam ne dee nañ ci loo xamante ni bii doonut yàlla gërëm bu bu dee dikkee rek dara mënu ko faaw waaye nag alhamdulilah rabbil alamin bi nga xam ne dañoo dee ci toolu yàlla dee ci loo xam ne lu yàlla gërëm vraiment dañoo daal di wax ne nañu arrêté liggéey bi yëpp mbooleem chantier Touba Ca Kanam yëpp dañ ko arrêté nga xam ne bis bi bisub sarax lañ ko jàpp wala bisub bisub euh, delluwaat ci yàlla arrêté activité yëpp teewut Touba Ca Kanam dafa yëkkati lim bu ab lim donte bakkan kenn mënu ko jox wax seen wayjur na ko sarax si bu leen ci def dara nañ ko bàyyi ak Touba Ca Kanam ki ci ki gaañu ñu jël ko en charge ku daan dimbale jaami yàlla yi bu leen dara jotu bu fekkee ne dogal ñëw na ci yow kenn du ñaata xanaa di gën a sensibiliser nit ñi wan leen ne dogalab yàlla bu wàcc ñoom la te bu ñëwee kenn mënu koo fam ala ñu ngi ñaan yàlla nag dogal boobu yàlla bu ko yàlla wàcce waat ci Touba ci kanam waaye di encouragé waat nit yëpp leen defaral sëñ daal lu mu fekk nit ki daf ko war a jaral ndax nit dañuy faral di wax ne bu doon badar la dañuy jeex te lii la du badar laajut bakkan ñàkk yi rek la laaj kon nañu gën a engagé war te defal sëñ Touba dëkk bi ni mu war a mel mu mel ni te na leen sëriñ Touba teeru teral leen gàttandu leen ci barkeb Cheikh Ahmadou Bamba te yàlla doo ko gis ba xam la muy def loo xaji xaji buur bi làqale yëf ku gën a xajay gënañ na toomiw ku joye pey baa gën a gis tiisam yëf te yàlla kat xarit balay musibaal ngir dara jaal ko mbaate muy ku ñi baal